wajalilaayi maskani tubabat misrasmi abijaayi xayri manaba ana alladi aslamtu wajhiya huna ilayka caaziman ala an uxsina ana alladi lastu amilu abada ila siwaaka haahuna summa gada lim laa wa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi bu ngeen gisee fii ñu taxaw di magasin boo xam ne commission sociale bu Touba ca kanam ñoo fi wàccee xéwal yi nga xam ne moo jëm ci bokk taalibe yi nga xam ne yittewoo nañ ko leen taxaw waaye yittewoo nañ ko leen bàyyi xel ceeb bu rafet bii ngeen di gis nag juróomi ton la mu ngi bàyyeekoo ci ay jàmbaaru sëriñ Touba yu nekk ci Amérique picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf fondation Serigne Touba Social USAID ci njiital soxna Rama juuf ak jàmbar yi nga xam ne ñoom lay àndal foo leen seen ci social la ñuy yëngu guddi ci la ñuy yëngu bëccëg saa bu commission sociale jógee bu geestoo gis leen kon fondation Serigne Touba Social USAID ci njiital soxna Rama juuf ñu di ko dàkkantale Rama Social Diouf soxna Rama Social Diouf sëriñ Mourtala Mbacké moom Serigne Abdoul Fattah ak mbooleem commission sociale jàmbaar yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi ak bëccëg ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen wax ne yegsi na dana jëm ci ñëkk yitte waaye mbokk yi ñii mat na noo bàyyi xel waaye mat na noo roy sori nañu waaye seen xel mu ngi ci seet mbokk yi nga xam ne dañoo nekk fii ci dëkk bii te manqué lépp nag kon mbokk yi bu kenn xep bu kenn yem ay ca mburit nañu rey mbokki taalibe yi nañu rey roy Serigne Mountakha jàppale commission sociale ngir lan mu jàppale mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo wuy si woteeb ku tedd gi te manqué lépp te yittewoo ko leen taxu yittewoo ko leen bàyyi xel kon jërë ngeen jëfati yéen waa fondation Serigne Touba sociale USA commission sociale bu Touba ca kanam ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey tàllal loxo ñëpp nag bayuñ kenn bayuñ ñenn bayuñ fenn qasadani bil hayyin wa najjini min zulmi kulli zalimi wa sharri kulli jahilin wa alimi wa kulli saamitin wa kulli naatiqi wa kulli maariqin wa kulli taariqi بجاي خير من أبا